waaw asalaamaaleykum ah, man la Baye artiste comédien nekk euh, benn Baye Fall boo xam ne bu xeebu xeebu boo xam ne gars yi nee nañ daal mën wër. bu hmm. ma xaw a jaaxal en même temps ma nekk membre Arcos. Hmm. kon Baye daal mi ngi doon muy. Hmm. jëmm jaay léegi tey boo ñu doon wax ci Baye kenn mooy Baye. waaw Baye nag bu ma la dee wax benn ndongo la. benn taalibe la boo xam ne buy buy jàng defaguma dara tegaguma sax sama tànk. waaw mhm. defaguma dara damay doon dugg si kon Baye nekk koo xam ne tey jii mu nekkoon tëyër aar jara ko bu bàyyi léppam ndax aara tax daal moo ba lépp boobu di tënk ci gàtt mhm. waaw gëmu jeey Baye waaw ñu gis nga in indi innovation apporter benn touche personnelle boo xamante ni c'est propre à loolu lan moo ko def waaw loolu man nag dama jàpp ni moom gëm sama bopp tey ma ko may waaw gëm sama bopp ma ma ko may tey parce que yàgg naa def dara ñoo xam da ngay nduróog diw ñu xam baa da ngay nduróog gi tranga yàgg naa ko dégg mais ma koy cherché def sama répétition bopp di def sama bopp man kese di jël sama individuel bopp ba am li mu bëgg tey loolu mooy waral tey ma dem ba am baay mais mhm. saaneex ñoo daan dróole sama idole mhm. sama idole la sama conseil la sama mag la sama lépp la mhm. waaw donc ñu gis euh, Kër Baye donc nekk série boo xamante ni c' est très suivi à sur sur YouTube. Mhm. donc euh, idée bi nan la ñëwee quoi Kër Baye. idée Kër Baye waaw idée nag ñu ngi nekkoon ci combe moo doon def anniversaire am. Mhm. man ak gaa Gadio donc defal ay sketch pour publicité bi daw. Mhm. def ay petit sketch cinq minutes cinq minutes pour lancer anniversaire bi ci lañ pare compte YouTube bi. am 3000 abonnés ëpp ko na ëpp na ko man ko kañ yegg te ñoo yeggale def ay sketch mu mhm. ma la lay def man ko non amoon naa lu Bachir bindool mhm. mooy booy bu xees bi am na lu mu bindool mhm. ci lañ ko xëcc téye ko ci lañ ci lañ def mu mën na ko ni ñu koy tuddee ko comme man maay borom kër gi dañ ko def kër baay waaw loolu indi tey kër baay ni daal ba yàlla tekki loxo ci biir série bi ñu gis ni yow sa relation ak euh, Pa Namado ak euh, Mame Thierno donc loolu naka ngeen koy dundee paam Namudo du la may dara. Namudo sama gaañ la sama mm-hmm. gaañ la keus nii. Mm-hmm. waaw sama mbokku Baay Faal la sama gaañ la. Mm-hmm. dafa maa bëgg trop. loolu démb la tey door a ñëw. dama nekkul dara dara dara dara nekkul dama daan wax bàyyi dama lay bëggee man it mu nekkoon koo xam ni. dama ko bëggoon lool. xam nga suma relation ak maam Thierno maam Thierno moom dañoo yàgg. waaw dañoo yàgg. ma bokk benn kër gi dem. léegi biir Thiès gis nañ ni bëri na ay comédien di ko wax comédie. donc gars yi sax ñu ngi tooñ si réseaux sociaux yi nii boo demee Thiès boo gisee ñaari nit yuy xeex bul àtte ndax dañuy tourner affaire yooyu. non ay détails donc voilà léegi sa diggante ak euh, voilà yeneen euh, comédiens yi nekk biir Thiès ñu ci mel ni Sanex Serigne Gagné tout ça yan relation ngeen entretenir. Euh, waaw man nag aw ma ak kenn xaar ma yàlla dëgg mhm. yàlla. may na ma amul ci comédiens yi ñëpp nag la wax muy bu Thiès bu Dakar bu Bambey bu dëkk bu nekk. Mhm. comédien bu fa nekk rek maa yow def nañ nii avant. Mhm. Mhm. avant lii sax la avant siiw bii nii. yàlla def na comédien yëpp samay gars yi parce que daan nañ dem festival yi di dajaloo. xamante xam nga loolu moo connaissance boobu moo njëkk tey lii ko waaw lan mooy ambition Baye si dans le futur est-ce que xaar nañ Baye mu tourner ay séries yu ci mel ne ay TFM wala RTS ou quelque chose comme ça. waaw dama koy def incha allahu. sama bët romb na foofu. Mhm. sama bët a ngi états-unis wër àdduna bi yëpp toog yëngal mhm. waaw ndax am naa gëm-gëm bi te mën naa li may def xam naa ne mu ngi ci man mhm. waaw. ñu jeexal rek ak terme yi nga xamante ni Baye da koy utiliser souvent ñenn ñi wax ne voilà day pervertir ou quelque chose comme ça ah yow loolu naka nga ko gisee. waaw man nag des fois nag terme yi am yoo xam ne dina ñëw lool day jékki-jékki day ñëw naturellement mais du ma ko tay nag franchement. ba un jour nee naa monteur bi saa bu ma loolu boo ko gisatee boo ko frotté mu daw dugg fa nga daggal ma ko. parce que mhm. tamit ay kilifa dañ may seetaan. Mhm. waaw kon dem naa ba bàyyi Karim. ma mhm. dem ba ma jàkkaaroog man woolu ma mu bàyyi dama lay seetaan. doomam tamit di sama xarit Serigne Baara. kon loolu jar na xoolaat ñi ngay gérer bu baax baax. comme dem na ba kilifa yi di ko seetaan moom. waaw dañ koy rafetaatal bu baax a baax a baax. mais nag yooyu dañ ciy jéggalu tamit. Mhm. parce que am na yoo xam ne des fois mën ngeen koy seetaan ñun booy mais mag ñi. am na ñoo xam mënuñoo toog seen i kilifa di ko seetaan. Mhm. des fois moo wax déli bu rëy. Mhm. <laughs> ñu ñu jeexal rek lan ngay wax Tactic TV seen la YouTube boo xam ni ànd ak site internet tactic point sn donc di ñu nekk ay ndaw di doog di jóg lan nga leen di. Tactic TV. waaw Tactic TV ma leen wax fii ay lu ndaw amu fi. nit ki boo gëmee li nga gëm rek day màgg. force. Mm-hmm. Mm-hmm. Tactic TV nag ca kaw ca kanam. dama ni man Mbaye Mikelle bi Tactic TV laa àndal falaa far falaa bokk falaa dëkk kon Tactic TV ca kaw ca kanam bu amul ragal maa ngi seen ginnaaw. ne doxal.